moo tax kon jaadu na ci njabootu yenent bi wala ci jullit di ñu gën bàyyiwaat xel alquran surtout ci weer wi nga xam ci lañ kan li liyu dabbiru ayaatihi wala ulul albab yàlla nee na buñ ko étudier buñ ca yem waaye nañu jéem a découvrir li nekk ci mémoire bi pour mu man ñi diñu fatali parce que alquran mémoire la innahu la lak inna nahnu nazzalna adh-dhikra وإن يكاد الذين كفروا لا يذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر بن جانرو ميموار لا بو خامني موي فاتلي نيت سورسام تا جوليت بو غيس نياتي سورس لا ام سبحانه وتعالى سورس نياريل بي موي يننتي بي صلى الله عليه وسلم سورس نياتيل موي القران يالا نيك تي دي رب العالمين يلف لب yonent bi nek ci suñu aduna bi nekk rasulal alamin wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaaka illa kaafatan al alquran ñëw nek dikra lil alamin kon ñetti source yi julli di war na ci baye xel na ci bir shahr ramadan al mubarak motax buñ delo ci suñu muntalaqu aya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون با يالا دي جيخال وناني تيري بي ني واخ القران دي تي وير شهر رمضان الذي انزل فيه القران ني نكو لوتاخ nga واتيه كو موني هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يالا نينا ما جيل تيري بو تيد واتيه كو تي وير وو تيد wàccee ko ci sang bu tedd bu ñuy wax muhammad sallallahu alayhi wa wàccewuma ko lu dul mu nekk njub pour humanité waxul pour jullit yi de moo tax alquran du pour lislaam kese kese mais téere àdduna la muy hudan linnas wa bay bayyinatin min al huda wal furqaan beneen secteur bi ñëw ndax buñ nee secteuru alquran moom moo résumé lépp lu dellu ci ibaadaat yi julli yeeg woor yeeg zakaat yeeg dem màkk yeeg sadaqaat yeeg yu baax yi nit di def yépp dañ koy versé ci secteuru Qur'an mais bu nee furqaan nag dafay dellu ci tafakkuraat yi mooy nit ki delloo yitteem ci science delloo yitteem ci yàlla def ci suñu àdduna bi te benn boo ci jël muy découverte boo xam ni la ca nekk ci enseignement ëpp na parce que bu dee wax yu kese kese kese bu jóge ci yeneent rek ci la nit di waaroo kon booba xamul ni yàlla sédd na yeneen créature yoo xam ni duñu nit duñu yonent te sédd na leen ci cadre bu sérieux waaw xaa rabbuka ila nax ak yeneen ak yeneen yooyu yépp ci secteuru furqaan bi ca nga koy gëstoo

ubbi na bunt yoo xam ni ku ko topp moo am solo moo tax yàlla fu ne la wan boppam ci biir téere boobu ñuy wax alquran kon ñu gën ko bàyyi xel ci shahru ramadan al bi ñu nekk bi ci des ramadan ginnaaw bi mu nekkee pratique culturelle am na beneen apport bu muy apporteel nit rawatina jullit te mooy daf koy faj ci mbooleem jàngoro yi nga xam ni dafay gaar nit lu mel ni al amraad al muzmina maladi yi chronique yi nga xam day nekk ci nit te lii may wax ñoo xam ni seen xam-xam dafa wàcc ci wàllu dafa màcc ci wàllu médecine ñoom ñoo dem ba découvrir yooyu ñu def ko ci seeni bind fesal ko ci wàllu xam-xam xam nga tey am na feebar yu ñu sonal lu mel ni ay genre hypertension lu mel ni ay al qalbiya ay maladie cardiovasculaire lu mel ni euh, al amraat atanafusiya nit ki appareil bi nga xamni ci lay defé euh, noyem ak yoyu parfois mo am problème yooyu corps dafa bok ci faciliter nit ki pour yoy bu ci war fonctionner fonctionner nam fonctionner